jërë jëf mbooloo mi maa ngi leen di nuyu di leen andil nuyu président Macky Sall mii sunu responsable mii sunu leader ki ñu tànnal Abdoulaye Diouf Sarr te juumul dinaa ci ñëwaat léegi ministre Abdoulaye Diouf Sarr monsieur le maire de Yoff monsieur le de Dakar yàlla buñ cat jiitu maa ngi nuyu mbooloo mi yëpp di nuyu magi Yoff yi ñu fi fekk di leen sargal di nuyu sunu camarades yi ñu àndal ci nekk mënoon na taxaw fii wax te ku ci nekk am na loo mën a wax ci Ablaye Diouf Sarr am na loo mën a wax ci programme am Seydou Gueye mënoon na ko def Pape Mayel mënoon na ko def honorable député Badara Diouf mënoon nañ ko def mais Ablaye xel war naa dal li nga xam ni am na ci Dakar bu yemoon ci dakaar rek ñu ko yoof dina am lu des buñ ko gisoon yoof te gisuñu ko ngàpparu fi nga mëxee suuf laa ilaaha illallaah zone ci kaw ci kaw ci kaw ci kaw dafa baax te yéen a ko wax yéen a ko wone gisuñu fi kaar ay mbokkam rek a fi nekk kon Ablaye gàcce ngaalaama foog ñu félicité ko ndax ñiy xëccoo dakaar bari nañu mais gisaguma ci ku am expérience maanaam am loo xam ne da nga ko fekkee da nga ko dund loolu mooy expérience gisuma ko ci gisuma ci ko am expertise mooy xam-xam ndax li dal ci àdduna bi dal ci réew mi fekk Ablaye Diouf ministère de la santé bu doon ñi nga xam ne ñu ngi jànkoon ñu ngi jóg fi mu nekk ñu ngi xëccoog moom kon heure bi dina fekk senegal ñuy jooy lu baree bari ndokk nag bi ko président Macky Sall tànnee ndokk nag bi nga xam ni li nga li nga xam ne président sant na ko def na ko di ko président ab lay am nga programme bu cohérent gis nga nag bu programme bi baaxuloon dañ ciy maandu mën nañ koo gunge jàppale ko waaye duñ ci wax mais programme bi mu leen li mu yéenee dakaar moo ëpp li mu bind dañuy kay nit ku maandu bëgg a def la nga xam ni wax na kook ak yéen moo tax mu yemandi fii man xam naa ni Abdoulaye Diouf de na yokk budget Dakar xam naa loolu. tàcc leen loolu waay. te nag te nag du teg waa fitna Dakar ça c'est aussi important yokkal leen te du leen teg fitna mais surtout. la ko waa dakaar dénk jaarale ko ci Benno Bokk Yaakaar mu def ko ni ko waa Dakar bëggee mais surtout ni ko président santé et ça c'est extrêmement important xam nga buñ la joxee alal mu bari mu tuuti li am solo mooy na nga ko def na nga ci def liñ la sant Ablaye ku dégg ndigal la won na ko président Macky Sall ci biir gouvernement bi ab lay ku dégg ndigal la bu ko déggul woon ni waa Yoff doxalee tey diñ ko doxaleek moom ndax ñu nit doonte sunu xarit la donte suñu mbokk la bu ñu àndeek moom dañuy xool bu ñu gisee loo xam ne bu buñ ko waxee da koy yokk dañ ko wax waaye bu ñu fi gisoon leneen it bu ñu wéeteeg moom ci ruq nañ ko ne Ablaye kan nañu jubbanti lii mais gàcce ngaalaama gis fi loo xam ne war na koo jubbanti li des li des mooy ngeen jàppale ko li des mooy ngeen joxaat ko yoof li des mooy mu jógee yoof ngeen jox ko ndakaaru ngir li mu wax ak yéen en matière de gouvernance li mu wax ak yéen en matière de cadre de vie lu mu wax ak yéen en matière d'emploi avec l'aide du gouvernement mu mën ko def xam nga buñ la denkee maire yi bu mu mënti nekk ci sunu réew yi bu gouvernement jaaree boor bi nga jaar boor be dara du sotti mais li président Macky Sall di def tey jii bu ngeen joxee mairie de Dakar Ablaye Diouf Sarr jox ko mairie de Yoff bu booba bu booba li nga xam ni président définir na ko muy politique publique yi ñuy mëne Ablaye dina mën a ne wàllu ndakaaru lii la bëgg naa defar lii waa Parcelles Assainies bëgg naa defar lii waa Médina bëgg naa defar lii waa Grand Yoff maire yi fa nekk mooy li mu doon tey maire bi ne ah man kat boo bëggee def li war naa cee dool dolli nangam dinaa ci def nangam jàppale ma ci nangam bu ñu boolee ñoom ñaar seen doole la ca des gouvernement bi président Macky Sall sant leen ñu defal ko loolu mooy li nga xam ne moo jig askan wi. loolu mooy lii defaral askan wi ci la leen président Macky Sall woo mais surtout ci la leen Ablaye Diouf Sarr woo Ablaye yàlla nañu yàlla may ndam ñu feete ko ci jàmm ak salaam li nga wax ak waa Dakar yëpp nga def lu ko fuul ñetti yoon ba ñeenti yoon muy jariñu Dakar je vous remercie. yaay góor